il faut aussi imaginer est-ce que Sidi Lamine Niass bu même malgré ak lui réunit, parce que na ah, devant il n'a jamais jamais mis en vente ventre Walfadjri c'est que Cheikh Cheikh c'est quoi c'est quoi son problème en fait il a quoi comme problème peut-être il a cet esprit cette mentalité euh, française parce qu'il a vécu il en a vécu hein. pendant pendant pendant 20 ans Momo c'est comme si lui il se croit être en France mais oh, Sénégal nous dañoo miin lii Cheikh Niass bu Sénégal warna Sénégal, Cheikh Sénégal deug deug deug moment mais warna wessu a ni c'est pas la première fois ñu coupé ko ce c'est pas la première fois ñu koy menacer wala ñuy jël ay des décisions à à à sa à sa à sa non son mais cette fois-ci donnez-nous retirer licence bi. Mané, même buñu retirer licence Walfadiri. ce régime là Moko euh, kan moko retirer retiré c'est le régime le ministre de la communication Abdou Karim Fofana. est-ce que c'est confirmé? parce que Cheikh moom li mu wax noonu. c'est c'est non xaw ma xaw ma mais mais quand même procédure bi mu doon demee noonu. dama ne dama ne même une grande chaîne. oui de retirer la licence, c'est ce qui est anormal d'ailleurs. wal fajiri. mais ministre de la communication. dama ne Moussa a amul droit de retirer le signal Thiam. ma ne boo Moussa Bokar Thiam Moussa Bokar Thiam laa wax. du ministre là, ak CNRA mais. Wal Fadjiri, lan lay doye di mettre en jachère Walf Fadjri di ko jaay au nom de quoi parce que dañoo retirer seen licence d'exploitation mais ni dañuy wàcc élection day ñëw. tant que patrimoine national. mais dañuy wàcc ñeneen ñëw dañu leen di delloo seen licence léegi Cheikh Niass lan lay yàkkamti jaay Wal Fadjiri lan lay séddee lan lay séddee en fait Cheikh Niass lan lay dund lu Sénégalais dundul fii. Hmm c'est Cheikh Niass lan la dund que journaliste yi fait nekk dunduñu parce que journalistes yooyu ñoo sur le terrain ñoom ñoo nekk ci plateau yi Cheikh Niass il est là comme directeur il est chez lui hmm. événement par événement lañ koy invité. wala wala wala occasion par occasion lañ koy invité. Euh, mais Cheikh Niass lan lay il bay jaay Walfadjri lan laa xamul lan. c'est ah. comme si il est tenté de trahir son père. Euh, nee na mënul fay février mais mais mais Cheikh Niass c'est pas la première fois mon nekk ci kii commandé moment boobu. Sénégalais yi ko. est-ce que ñu tey dañoo pare parce que dafa amoudou Amadou lim def ànd ak amoudou hein? Amadou Ba dem na ci Sénégalais xam ko seetaan. ñoom Bougane Gueye nekku ñoon ci moment bi ni bañu ñu sen compte mais Cheikh Niass lan lay cédé à donc à cette cette cette cette comme adresse euh, tentative la bay ne day jaay Walfadjri wal fajiri boo c'est comme si patrimoine national yaa ngi koy yaa ngi ko doon wax journalistes yi jaar wal c'est comme si une école de formation wal fajiri fii lañ ko fek même régime bi koy retirer licence am fii lañ ko Nous, ñom ñoo doon dem ci wal fajiri ñu jox leen en temps d'antenne ay temps d'antenne ñu wax ban se xol sedd ñom ñi tëj wal fajiri ba retirer licence d'exploitation bi ba ñu opposant ñom ñoo doon laaj à ay temps di fa jaar di wax ba seen xol sedd ñu Wal Fadjiri, couvrir ay événements couvrir na jamono M23 les les événements de juin 2023 de juin 2012 Walfadjri couvrir ko Fadjiri, couvrir ko le mouvement du 23 juin mais Walfadjiri daf ko couvrir pourtant ñom ñi dañ ko doon rafetlu nek leen nee leen nekk leen au côté du peuple. mais Cheikh Niass pour pour euh, pour le même. Hein? Euh, pour euh, mémoire papam rek mo na gàddee té baña gaaw cédé parce que mais loolu laa la comme si il a trahi Sidi Lamine Niass. mais Cheikh Niass suñ koy analyser ay cas du nga xam da koy yéki un deux trois jay Walfadjiri mais un deux trois damay jay un deux trois damay jay Cheikh Niass est-ce que Cheikh Niass est faible. war na amat ces jours encore une fois. mën na amaat six jours Cheikh Niass est faible. parce que si wàllu si wàllu si peut être histoire fekké wuñ sulu lu mais

nous au Sénégal nous sommes lu les gens. des gens se sont fait torturer ci des manifestations mais est-ce qu'ils ont mus nañu dem dañuy leur nationalité c'est que ça. Moi, Cheikh mentalité française parce que il en a tellement vécu en France mu fa le lu jaadu luy xew France c'est la même chose mooy xew au Sénégal mënul nekk la France peut-être ñoom dañoo fonk citoyens. citoyen avons xam citoyenneté France a fonk constitution te dañoo fonk doomu en tout cas citoyen français mais au Sénégal nous sommes donc si nous, nous sommes dund ñun ñu fi Sénégal nous sommes fi ragné fi te dund lu ci ñun am nañu men mentalité bu différent ak mentalité Cheikh Niass Sidi Lamine Niass bo xamanté il a vécu sa vie au Sénégal xam na mentalité sénégalais mais Sidi Lamine Niass ban violence la ñu le la la sibirul est-ce que jaay nañ ko est-ce que tej na Walfadjri est-ce que jaay na ko mais Cheikh Niass lu xew lu ndaw damay jaay lu xew lu ndaw damay jaay da ngay jaay au nom de quoi. C'est vrai que c'est un groupe groupe euh, euh, groupe de presse là. mais Walfadiri aujourd'hui c'est comme si Walfadiri de tous les sénégalais. C'est comme si Walfadiri de tous les sénégalais. Sidi Lamine Niass yàgg wax Personnellement, Walfadjri faut am journaliste man Sidi Lamine je ne suis pas votre patron C'est le peuple sénégalais qui est votre patron. Hmm. C'est le le peuple sénégalais qui vous paye mais pourquoi Cheikh Niass aujourd'hui il comprend pas ce message là bay ne moom day jaay Walfadjri mettre aux enchères Walfadjri ba le 25 février au nom de quoi. L'emploi de boutique liggéey moom euh, delluwaat na au nom de quoi. il faut que ñu xamal il faut il faut faire revenir à la raison Cheikh Nous Cheikh Niass ñu xamal ko ni naam papa mais papam daf mettre au service du peuple. il faut son papa a mis au service du peuple. Cheikh Niass me ne Fadjiri mom ko fi muy dox normal. Mais pourquoi, pourquoi Wal Walfadjiri Merci beaucoup. L'équipe de l'Assemblée nationale. Non, quand même. Hmm? La plénière a commencé. Merci, On se donnera.